Diallo rek lim la mën a jox ci ay millions kenn mënu ko wax. te xoolal le mec le mec il m'a forcé ma am benn conversation moom comme si moom daf may jàppale rek nee na comme si daf que xam nga loolu. moom moom ci boppam. te ah. moom moo tëgg lépp moom moo tëgg lépp moom moo tëgg lépp moom moo ma wër si ba gis ma man xaw ma woon kan la mais dafa si duma ko ne am naa benn cible boo xamante ne le gars dafay dem di koy seeg moom rek. Mamou Diallo OSG ñu dugg dem maître Sow yor benn lii nii li nga xamante ne maître Sow moo ko bind si loxo numéro jox ma ko dinaa la ko jox maître Sow yaa maître Sow ñoom ñëpp ñu wax si après ñu ñoom ñu ne mun ndax nañ am sperme même ma ne leen comme ça dire quoi yéen. est-ce que ay nit kenn et tout ça ñoom ñoom ma wax ne dama retourné waat li nga xamante ne duñ ko def say ni doom déjà loolu noonu c'est benn gis nga nag rek loolu noonu rek. ce qui est grave. luñ ci mën a jël liggéey et pourtant am naa ci. oui loolu luñ ci mën a liggéey. après ma demaat ce jour ce même jour aussi j'ai appelé maître mais une semaine après maître m'a appelé pour me dire que le gars il est là ma ne ko waa ji ñëw na fi de parce que damaa duggoon cabine ak kenn ma ne ko ñëw na mais def dara dafa ñibbiwaat ma sew. voilà dama après mu dem mais jour boobu si Mamadou Diallo même moo ñu jox oto ñu dem euh, ànd ak benn médecin dem seetawoo ci benn médecin médecin bi def lii hmm? tout ça léegi nag gis nga gis nga loolu noonu ah ci pet ah, ci man sama diggante ak yow mm-hmm. ay millions la yoo xam ne yow sa compte lay nekk fii loo xam ne dañ koy téye. parce que déjà déjà. ñoom tamit par force. parce que ñoom ñoom ñoo tax liggéeyatuñu moo tax ma ne la maa ngi sa ginnaaw au fait li ma lay wax ne sama ko nii sama yaay kenn ko si ma. déedéet xam naa. kenn xamu ko parce que. confiance bi nga am sama papa mosuñu wax mosuñu wax lu jëm ci dossier bi déjà confiance bi nga am ci man cest à li nga mën a wax man. li nga mën a wax ak man mënoo koo wax ak kenn te dama lay wax. confiance la boo xam ne sama diggante ak yow boo xam ne lu ñuy téye la rek denc voilà. parce que nit il faut mu am ku nekk ci wetam dimbale ko comprendre nga bu baax. mais man jamais dama lay dimbale jamais maa ngi yow ba nga dee yow waxuma la dara dama lay téye. ba li ñuy dee. wa bien sûr pourquoi pas pourquoi pas yow man maa lay jox Cheikh Ibrahima Niass déggoo lu ma la yow loolu bul sonn. loolu boo ko tëggee instant bi loo si tëggaatoon nii ba nelaw jeex na. Mawlana Cheikh Ibrahima soo si tëggaatoon ba dem nelaw. loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la. am aw nga problème man bu fekkee ne man man d'accord naa bu fekkee dañoo wax ne benn dinaa fa kenn bu ñu waxee ne mënuñu defal compte je sais mën nañ ko def sa compte. bien sûr bien dañ koy jël dama koy jël. mais nag day après dañ koy jël léegi daal li ma lay wax daal mooy. loolu ñëpp hmm? fii day sedd day sedd guy ba pare duma taal benn loo xam ne nga xamoo ki na loo xam ne su fekkee ne doo dof da ngay xam lu xew lépp dégg waaw mu ngi noonu te li xew lépp xam nañ ko ah loolu mooy problème bi yow mii nday mbili gi nga xam ne yow yaa yow yaa waral coow li yëpp ñu xam ne coow li yëpp yow la te lépp c'est faux lu tax yow duñ la jox ay milliards hmm. ah, dañ la ko war a jox aji déjà tey dinaa leen tiit parce que je je retourne vers euh, François Hélène Gueye pour lui dire que de euh, samedi suba incha allah dinañ def live waaw léegi nag man révélation yaa ngi dégg waaw mais man dinaa lay xelal ni ngay def pour toog da toog ne leen dama bëgg kër nañ la tabaxal nañ la jox clé à main yaa ngi dégg mm-hmm. soxlawu sax clé à main nañ la defaral terrain ñu jox la xaalis bi ndax mun nañ la jox terrain bindal la ay kayit ak yëpp fekk ne ñoom en domaine duñ ko duñ ko sottil ci yow comprend nga lu ma la dafay nekk mu. mais ñoom xam na xam na xam na xam na xam naa leen ay sànqeet la ñëw ñëpp te ñoom ñëpp laa xam ñoom ñëpp ku nekk ak ñu ak mhm. ñëpp laa xam ils n'ont pas intérêt ma wax loolu moom xam na xam naa ko. waaw waaw ils n'ont pas ñoom ñëpp tey mu xool attends dinaa photo benn benn liste ci ñi nga xamante ne jot naa leen gis. su ma su ma su su ma la ko waxee sax lii di ay doomu aadama moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne benn une petite lañ nekkal boo xamante ne xamul dara def la et tout ça te xamuñu lépp lu ñuy def xam naa ko dama leen bàyyi si biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag ci biir boobu nag te xam ne ñoom ay fen la léegi nag par force nag mu neex mu naqare dafa jot ci taabal nga ne leen yaa ngi may dégg. terrain soxlawuma ko dama bëgg ngeen jox ma ma tabax pour sama famille. ces gens-là xaw ma ay nitu lan lañ. waaw léegi nag mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi munuñ laa téye ñoom munuñ laa téye di lay utiliser ci loo xam ne ay waxu neen la rek comprendre ba pare nag ñëw bëgg bëgg nag yow duñ la jox sa àq sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel mi xam nañ ne yow xale nga. xel mi xóotagul noonu moo tax ñu jox la oto jox la garde corps jox la kër gu rafet pour ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaam nga xam ni belle vie lañ lay dundaloo waaye belle am na lu ko lu ko gën mhm. xam nga lu ma la nga am sa yëfu bopp sa sa xaalisu bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa bopp mhm. te mën nañ ko du dëgg mhm. je ne sais pas bon. Ça m'intéresse quand même de partir pour savoir plus. Ah, bon. Au cas où ma war a jël démission. waaw d' accord léegi man danaa xool oote su ma ootee. xool ko ban jour la ñu mën a recevoir ñu def. gannaaw saa la dégg nga. ok. incha allah. parce que il faut que ma dem quand même. waaw. waaw nga xam mm, xaw ma li tuuti ci décision yi ma war a parce que il faut que ma jàmbaarloog ñoom franchement. Ah, ah, parce que. parce que ils pas intérêt que ma wax ils n'ont pas intérêt ma wax. waaw non su ma waxee enragé wu leen seen góor dafay daanu. pas intérêt ma donc comme c'est ça on va jouer maintenant carte sur table. mais moo tax ma bëgg yow nga ñëw nga toog xam naa ne li ñuy wax da ngaa nar a wax yaa ngi dégg. ñu lay def dañ lay bëgg a liquider. dañ lay bëgg a liquider parce que ñoom xam nañ ne fu nekk ni yow bis boo waxee tas àddina. Mhm. damay parce que sa papa dafa ne benn kilifa lañ am gis nga ba muy def conférence dafa ne benn kilifa lañ am ñu ngi koy déglu. man nii lay wax. Cheikh sama papa ma téléphone ne ma bul xamante ne si biir bu ko loolu dawloon ma. waaw donc léegi nag ñoom Me El Hadj ak ñooñu du leen aaral parce que Me El Hadj Diouf affaire mu ngi ciy baax. waaw oui ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp ku si takk képp ku si takk sa affaire mu ngi baax sincèrement. xam na ne moom Me El Hadj Diouf xam na ne lim nekk yëpp ay fen la. mu ne xaaral léegi may may jéem a encaissé di lekk léegi ñu ngi koy jox ñu moo tax mu ne léegi nag nday mbilli gi nga xam ne nag coow li yëpp moom la toog lu tax moom duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko jox alo ma ne xam nga xam nga yàlla moom tey su doon wàccee mbugalam fekkee tey tey tey tey la ñuy dem àllaaxira man damay bokk rek ah ndax man nekk naa complice ak yow toog xam te noppi xam nga boobaa moom ndax fu nekk nii moom mbugale yàlla moom kenn xamul du jeex. mais mais mais attends, non c'est-à-dire. Euh, aji suñu waxee loolu complice mooy lu nit dajaloo te booloo fexe ko loolu complice la loolu mooy déggoo loolu la wax loolu araam na wala araamul man muy doomu sëriñ te jàng kay xam naa ci dara yow da ngaa yaakaar ne àddina fii la yem ñun ñii ñëpp yowmal qiyaam kenn xamut suñu yàlla jéggalu dëgg mbugal guddul jeex la xala imaginer rek bët bu set nga jël sa loxo teg ko ci gaz ci gaz mu lay lakk te gaz boobu doo ci musa teggi sa loxo da ko ci teg te safara si yi ngay gis ci àddina bi xam nga ñaata lañ ko sëppee ci safara su ci àllaaxira Mhm. sëpp nañ ko ci juróom-ñaar téeméer yoon juróom-ñaar téeméer mooy mooy sëpp mhm. déedéet bul tiit arko baax na nag léegi-léegi nga jàng ñu jàngal la ci mbiru yàlla parce que xam nga nit doomu aadama day nekk ci àddina te du jàng du jàng yàlla su jàngee yàlla nag ñu koy wax ci yàlla dana am lu bari loo xam ne dina ci bàyyi xelam mais nag